sénégalais yooyu nga xamante ni euh, ñoom ñooy assumer rôle bu mag a mag jël ay risques yu mag di nekk ci ay contradiction yu métti souvent ak politique yi mooy ñi nga xam ñoo nekk ci corps de contrôle yi souvent seen liggéey du yomb ah. hmm. lu métti la ñuy daj souvent ñoom ak yàlla rekk ko xam yu métti pour produit rapport yooyu rapport yooyu aujourd'hui ki nekk à la tête de l'institution de l'IGE wala ki nekk à la tête de la cour des comptes wala ki nekk à la tête de l'OFNAC amul solo parce que composition bi ngay xool ñi nga xamante ni ñoo fa nekk nga xool seeni profil ñu am loo xamante ni ñoom ñoo jógoon jàngi ko man jàngiwu ma ko yow jàngiwoo ko ñooñ dañu jógoon dem jàngi loolu waslu ci àq ba yàlla may leen ci xam-xam la ñuy génnee ca seen liggéey boobu du rek xalaat bu ñu tënk wala wax sa xalaat ak yooyu dafay nekk liggéey boo xam c'est un travail scientifique technique boo xamante ni tamit dañu jàpp ne am na rigueur boo xamante ni moom moo ko lal kon ñooñu li ñuy def mooy delloo leen njukkal wax ne aussi xëy na bëgg suñu réew def ay jéego ndax xam nga dafa am loo xam dafa métti trop ñoo ngi wax léegi Guet Ndar noonu ñu ko waxee la ñu mën a wax yeneen ak yeneen université bi gis nga problème yi ci am bërki démb rek je pense front am na nga gis école yu ndaw yi tamit ñu nekk ci problème nga gis G7 di yëngu G20 di yëngu 80 ñu indi CREI yi wala 81 cours de répression de l'enrichissement illicite mm-hmm. président Abdou Diouf 2012 ñu indiwaat CREI yi man bu échec amul damaa xamut lan mooy échec c'est parce que on n'a pas su fermer toutes les portes ba enrichissement illicite amul mm-hmm. loolu pour man c'est un fait et les faits sont têtus mm-hmm. loolu laa jàpp léegi ñu jóge ci président Macky Sall nag am yéene bu gën a rëy nag macha allah dafa indi CREI indi nag te wax na dëgg nag ndax encore une fois moom parcours am ci état pour chef d'état am ko yombul mm-hmm. xam na fi gars yi di jaar yépp loolu moo tax xam nga nekk maire nekk ministre lépp nga doon ko nekk président de assemblée nationale nekk premier ministre xam na buntu yëpp loolu moo tax bi mu ñëwee énergie outil yi mu yëkkati yëpp dafa am solo of nag mhm. am solo lool mu daal di taxaw ci première declaration bi mu def en 2012 yéene bu mag la am ci corps de contrôle yooyu jox leen sax ay liggéey yu mag am na sax ñu ci jël yóbbu leen King Fahd hmm. ngir sant leen ay liggéey ngeen ñu càmbaral ko ngeen ñu defal ko état des lieux wax na dëgg corruption corruption concussion détournement de deniers publics loolu je parle ci contrôle contrôleur des impôts bi laay wax hmm. loolu réew mu mu am nag foog gis nga bu bu loolu dakkul hmm. bu ñu defaatee ba deux mille vingt quatre kii ñëwaat boo boo xalaat boo moytuwul day génnewaat kër yi tegaat mais li gën a métti encore une fois te loolu je pense que ci la ñuy taxaw mooy bi ñu réactiver CREI yi mm. CREI tey DER fan la mujj xaalis bi ñu ci def commission rogatoire yi ñu ci waxoon ñaata la xaalis boobu ndax tey jii sénégalais yi te loolu moo ñuy indiwaat ci liñ tudd fii léegi ci benn visitu président xam nga man bu fekkee ne sunu réew tey ñun ñëpp mën nañoo nangu. Mm. ne président de la république rek moom mi nga xamante ni fu ko neex jaar ci réew mi. buy dem sax ñun ñëpp dañuy taxaw bàyyi ko mu dem. ndax soxla ñëpp lay doxee. te ñun kenn ku ci nekk sa soxla bopp ngay doxi mm. bu fekkee ne jóg rek seeti njabootam université laaj na quatre-vingt-six de francs fa mm. ma xam ne nag am nañ problème. ok Pape Djibril. franchement Papis Diaw et puis Bouba. soxlawul 86 millions pour dem université. loolu woon yokk rek si euh, l'histoire des cours de euh, euh, corps de contrôle. Mm. c'est que dama ne il faut également xam maa ngi doon suggérer ñu xoolaat les pouvoirs qui mhm. sont xam am alloués au, au président benn Birima bàyyi ma c'est mon avis je suis sénégalais je peux même dire que ah non bàyyi ma wax rek. waxul dara non eh, non waxul. non dafa dafa baal ma ko. non baal ma ko yow. voilà le contentieux est lourd depuis sànq. muy grave. bu ñu tuddee journaliste ba rek la feebar attaqué ñëpp. tant que maa ci naa la tudd yéen. waaw d' accord waaw d' accord amul benn problème. tudd ñu tant que tu veux y' a aucun souci. d' accord mais si si conseil contrôle yi. c' est que dama ne boo boo defee benn remarque. Hmm. xam nga dañuy def ay recommandations. ils vont dans d' autres services mais boo seetloo bu baax quand tu fais le constat ay politique. Hmm. kese la seen dossier di nekk si kaw. les gens. qui ont des engagements politiques en général. et qui ont des responsabilités ils sont tous politiques. mais loolu moo war a nekk parce que loolu mooy trait d'union mooy mooy waaw tous les cas. Mhm. mais loolu war nañu jàngat. Mhm. mais pourquoi c'est pas une coïncidence. Mhm. loolu du coïncidence mu nekk coïncidence xam nga loolu lan lay convoqué waat si beneen niveau la corruption boobu ñuy wax noonu. corruption boobu. loolu yëpp lay andi parce que quand tu demandes à une par exemple mu kii wax na ko léegi c'est vrai à un moment donné xëy na ni mu ko waxee moom moo il n'a pas fait d'euphémisme dafa euphémisme waaw mais ça s'est posé ici dans ce pays hmm. le président de la République avait demandé à ses directeurs généraux de mouiller le maillot de s'engager mm. yaa interprété moom mooy dafa lii wala lii mais c'est dans l'esprit quoi il faut mm. de la politique il faut vous engager pour qu'on qu'on soit beaucoup plus solide en termes de gestion de pouvoir sama nguur dina taxaw il l'a fait donc man corruption boobu ñi koy def mooy tu as des responsabilités politiques tu as besoin d' argent fonctionnaire Sénégal fonctionnaire u Sénégal mënul am ñu Sénégalais di politiquer c' est pas possible bu fekkee c' est ton salaire simplement nga bëgg a faj nit jënd ay xalu tabaski yóbbu ay maka c'est pas possible comme salaire ne peut hmm, c'est pas possible même un ministre ne peut pas le faire hmm. loolu moo andi yi moi je crois qu'il faut reporter encore gën a gas xool les les les vraies racines hmm. pour élaguer la chose là sinon gis nga déwén on est 2020 oui déjà bu bu 2019 génnagul oui mais le, le même bientôt dina le, non non euh, le même débat va se poser mm -hmm. les mêmes questions vont re revenir, revenir et les, les silences vont perdurer les silences mm -hmm. vont perdurer mm -hmm. allez Bouba waaw non man man man en man ma waaye man heureusement. ñaar ñëpp du ngeen ma. mais dimbali leen ma rek ah, du temps. bu fekkoon ni bu fekkoon ni ku amul xaalis doo politique opposition lu jël pouvoir. Hmm. Abdoulaye Wade jël na pouvoir en 2000. Conquête kan la àndal ak ku yor ku yor ministère. Macky jël na pouvoir en 2012 kan la ministère nañ wax ni li ngeen di wax laa d'accord dama ni. bu fekkee ne am nañu jël. accession je te demande pièce par pièce accession Abdoulaye Wade. au niveau du Sénégal du nekkul ay question d'argent ou de pauvreté. c'était un besoin sénégalais national hmm. ça n'a aucun rapport avec ah, des finances ah, non désolé merci beaucoup parenthèse bi c'était c'était bien désolé waaw mais man man man en tout cas angle bi may bi may bi may tànn ci tey euh, thème bi moom mooy damay génn tout ce qui est débat technique la et indiwaat tout le temps euh, lan hmm, benn dëkk bu mu mel bu tudd Sénégal waxuñu pétrole waxuñu gaz parce que dañu dégg ne am nañ fi gisaguñ ko en tout cas donc dañuy no gisaguñ ko mooy génnagul mooy que donc munuñu ju dañuy juger dëkk bi que fii ñu toll nii waxuñu sax terre parce que terre bi dawagul mais dama ne euh, ban rapport la ki nga xam ne moo am ndomba tànk ci gis une fois de plus nañ ñu indi affaire bi ci lu ci lu nga xam ne moo yenu maana lan la directeur général wala ministre wala en tout cas ku yor ndomb tànkam war a mel ci ku yore euh, ndomb tànk boobu ci réew mu ndool mu ndaw mu toll nii est-ce que tey jii nii un ministre sénégalais peut se permettre effectivement de conduire une voiture coute coûte cent millions je pense que non parce que le service public dafa am prix ah c'est pas le luxe ah c'est pas le privé service public dafa am prix parce que xam lu tax dafa am lu muy dégagé et ça c'est très important ça veut dire euh, ci réew mu ndóol mu mel nii ah un ministre de la République ne doit pas conduire une voiture qui coûte cent millions àndul parce que déjà un ministre de la république pourquoi ñu war ko dem unilatéralement yóbbu ko si benn kër boo xam ne 500 millions lay jàpp mu dëkk fa. dañu war a te pour man loolu loolu base booy la ñu war a convoquer pour savoir un peu ñi nga xam ne ñooy aspirer à servir le pays ñu leen di jox suñu xaalis xaw ma dërëm la xaw ma mille francs comme ça ay mille francs lay fay yéen yéen cent francs ngeen di fay lu mu ci mënti nekk. ki nga xam ne moom moo jël décision wu liggéeyal réew mi. alalu réew mi di ko fay fay kooku. ay prétention am dafa war a wàcc par rapport ak ki nekk ci privé man tey jii ni Youssou Ndour mën na maa jël ne ma dama lay def directeur des programmes de la télé ma ñëw ne ko man damaa soxla nga jënd ma benn oto bu mu ne ban kii ma ne ma bunuma bugguma bii bële mu dañuy wax d'accord mu jox ma wala mu bañ ma jox hmm. mais celui qui est ci service public bi prétention yooyu mën na ko bañ am donc quel rapport la ñu am ñun ak li nga xam ne moom mooy mooy ndomba tànk Sénégal ça pose problème temps yi wàññi nañ fi ay ay euh, dotation téléphone xaw ma ñu ne ñaata ñaata milliards la lañuy la ñuy la ñuy économiser mais foofu la ñu waroon taxaw parce que loolu benn toq la ci ci ay ci géej mhm. mooy que aujourd'hui pour sax décourager ñi nga xam ne dañuy xëy am na ñu bëri ñoo xam ne ndoom ma tànk bi ñu leen di fay ñii ci gën a bëri nan laay def pour am xaalis la kese parce que moo fi ne amul leneen luñ fi wax leneen looloo fi ne moom lañ fiy gis moom mooy tey jii bu ñu wax ay cours de contrôle euh, tey année ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon par exemple 2012 nan nga mën a ñu ne la danga nga jiiñ da jël alalu jàmm nee nañ am na ñoo xam ne dem nañ ci suuf ba négocier ba fay dell fa ba fay ñu ñu bàyyi leen ñu dem mais ñun ñi nga xam ñoo moom suñu xaalis bu ñu falee président wala ku ñu mënti fal mais waroo négocier si suñu tur te ñun xamuñu ko te négociation boobu kenn du ko gis boo sàccee alalu réew mi c'est un délit déjà avant tout. ana ñi nga xam ni ñoo fi ñoom lañ fi ne dañ fi jël am na fi jël xaalis te kenn déggaatu ko donc bu ñu bu ñu amee perception boobu que ni en fait à la limite ci dix yi da ngay am ñaari ñett juróomi nit yoo xam ne ñoom lañ fi effectivement jël kii leen ci réew moo xam ne ñun ñëpp xamante nañu tout ça pose un problème parce que bu ñu wéetoog suñu suñu bàmmeel rek toogeeg suñu suñu suñu wéetoog suñu njegenaay xam nañ ni bëri na ay problème au Sénégal. te te il faut ñu ñu banaliser ko teg ko ci suuf waxee ko wax wax boo xam ne dafay nekk loo xam ne day am perception bu claire. alors Ngor Niang tu d' accord ci li mu wax. d' accord lekk lu bëri mhm. yow ah. gis-gis dafa jóg. Euh, li am solo mooy li ngay wax ñi toog si saal yi di ñu seetaan ñoom ñoo ñu gën a yeewu sa jàpp daan moo tax lépp looy wax rek seetal sa digganteeg yàlla ak lu mun di am. Mm-hmm. parce que quelle que soit nos positions man li ma gëm mooy gënuma leen bëgg Sénégal te jàpp naa ne it gënu leen ma bëgg Sénégal donc dañuy wax rek pour defar mais ku wax te yàlla tax. xam ne de 2012 à maintenant en matière de gestion bu dee da ngay wax rek ku dee ak sa bàmmeel di nga xam ne le président de la République et son gouvernement def na quand même des pas importants en matière d'assainissement des finances publiques. Hmm. ça xam nga mbir mi. soit da ngay dem vers ça nga uti l'information wala nga gëm ki lay wax man utuma lu neex nit je parle au Sénégal mais mun naa waat bu tegoon fii kaamil que ne maa ngi fi woon ci nguuri ab Wade maa ngi fi ci nguuri Macky Sall donc je peux témoigner l'effort que ce gouvernement a fait en matière d'assainissement parce que audit bi emploi fictif mais kenn déggu ko ci nguuri Macky Sall combien la amoon feneen ak feneen téléphone bi ngay wax même maison conventionnée yi buuba di wax yëpp amatul donc même tey booy xool ministère yi doon loué amatul ñu ngi bañ doon defar jam ñaajo gars yi dañoo ne yëfi caaxaan la loolu lañ doon wax yëfi caaxaan la ngeen parce que jam ñaajo lu fa njëkk a nekk moom mooy le bâtiment bi waroon abriter l'organisation de la francophonie les gens n'avaient pas compris la vision du chef de l'État et il, il ne croyait même pas mu ñëw décréter ko mu ñëw defal leen tey ay kii ministériel les ba tey ñu ngi jàpp ne yàq la leneen ak leneen la tey bu ñuy defar ngeen ne dañuy yàq suñu jëlee loué ngeen ne waru leen loué qu'est-ce que vous voulez maintenant. non non non c'est pas non mais non je donne. non non mais parce li ngeen li may wax arrangé wu leen. oui c'est ça. parce que nga pas dit non xam nga xam nga man du ma dugg